arbitre soufflé na combat bi Boga mang ngi lay bëggee hey jàppante nañu Boga fasiar siyaar naa la jàppante nañu Simba ak Déranger jàppante dor Simba yor ngeen lu son li moo wane ginnaaw Déranger da am na lu muy wër jël na tànk ba da koy dëj da koy da koy da koy daan Simba. Simba daan ko déranger déranger na Simba daan ko Simba jógal ñibbi Simba Simba na jóg ñibbi Cheikh Omar waxal Simba mu jóg sangu ji daanu na yàggul tawul waaye yow déranger mi yow jógal ñibbi rek yow jógal ñibbi Sine dugg na ci géew mi Cheikh Omar Buur Sine benn maillot Sénégal la sol mu ngooŋu ngeen di seen ci géew bi ee eh waay Simba jógal ñibbi ndeysaan oo oh, sest ba adversaire ba ñëw na di ko dëfal bañ na ju ñibbi ndeysaan lii mooy déranger. mooy déranger. waaw waaw waaw. waxoon naa la ko. ah Mado ngi nii moom laa tuddee lamb ji. barke Serigne Touba day sonn ci man. billaay. mais li nga bëre li nga bëre. booy maa leen ëpp doole xool boo ma gisee nii. da may xeeb mais ñii maa leen ëpp doole du ma ak ñoom. xoolal gars yi xoolal mbooloo. billaay. am jël bi war a. waaw. Ah. Pikine ñëpp waaw di sant ñu ma jaabale ñëpp ci lamb yi lamb yi métti woon na trop barke Seydina Mohamed maa ngi ci quatrième combat trois victoires benn défaite sama première lamb laa daanu Iba Mar billaay wallaay ku ma ko waxul xamoo ko nag écurie Tefess gi waaw écurie Tefess gi nekk fa ak samay gaay ñoom amouras kii day ci sama lamb barke Seydina Mohamed ay ñoom Cheikh Ndour di sant waa écurie bi di sant waa Pikine mbooloo di sant sama booy Seydina Mohamed dañoo sonn ko man ba oh, Mado bàyyil appareil bi laa kii daa sama xol moo tey kenn jàppale moom bi parce que Seydina Mohamed te loolu rafetul. mais am na ndam lu ma baax na yàlla ñëw na. ay seetu seen Fallou ñoo ma ngéem tey ku ci mel ne ay Ibrahima maam Khadim ay Alaaji Fallou ñëpp. barke sëñ Touba di sant seen waajur bu baax a baax sëñ si sëñ Adex Mbacke di sant sëñ Abdou Karim bu baax ci moom laa tuub man Ndiakho laa woon sëñ Abdou Karim moo ma tuubal tuddee ma sëñ Mountakha di laa walaay barke sëñ Fallou te day gën neex rek borom mbég mi rek waaw di leen bëggee yéen ñëpp nag aja waaw ndeysaan maa ngi ci direct bi dëgg la maa ngi lay dégg